su ma ñëwee su ma ñëwee ci Maama Lamine Garga 2 mu nekk combat boo xam te ne combat bu neex la Maama Lamine bëgg na làmb ji Garga am na fu làmbam tolloon mu xaw a moom tamit bi mu ñëw ñu jox ko xale boo xamante nii du négocier combat moom Maama Lamine dafay xeex dafay bëre waaye am na koo xamante ni du xaati da lu mu def boo teggee mu andi leneen nu ngeen waajoo boobu combat. waaw Maama Lamine dama ko ne tey bul jël Garga mu ne ma moom laa bëgg ndax ndaanaan la te ñëpp dañ ne moom man Euh, jël ay matukaayam te xam naa. balaa may sori lu tax nga ne ko bu mu jël garga. waaw c'était juste garga ci défaite la jógee te mën a bëre te moom boobu promoteur yi moom lañ gën a topp combat yomb na ko. man mm-hmm. na mën na ko demal jëli keneen mu ne ma boo daanul champion doo doon champion te loolu esprit champion la wax na dëgg boo daanul champion doo doon champion mu ne ma garga mii ñu ne moom man moom laa bëgg pour wane sama bopp te it nag ndaanaan la te day lucide ci combat li muy lay wax bu ñëwee moom lay def ndam nag yàllaa ko yore. mais ñu ngi koy yaakaar ci moom di ko ci séenu te nee naa ko buñ ne la yaa man garga dañ lay nax daanaan la loo daan def fonk ku jël sa avance rek daan la moo tax mu jël ko euh, kon moo tax dañ koy jàppale rek di ko pousser vers la victoire euh, ñi ngi déggante moom toujours ma nga gàmm yi démb rek ñi ngi déggante mënoon naa laa dégtal vocal yi ndax moom fu mu toll dama koy bàyyi xel di xam ci état bi mu toll man noonu laay toppee samay poulain waaw dama bëgg nga bàyyi dara boo amee forme sax damay wax jàppoo tane na ndax soo ndee non boo ne baax na day réew wala mu de naagu du ma nangu loolu tane na rek laay wax. <laughs> ñu gis combat Mama Lamine xeex bi da ciy bari trop day suul ay tànkam. Garga 2 moom foo yëg sa loxo boo boo boo sàggoonul boo xefee gis ko sa gannaaw est-ce que yow loolu yéen a ngi ciy liggéey ak moom. waaye liggéey mooy bul may dara rek te luñ la may jëlal waaw bul xeex ba fàtte say tànk làmb da ngay xeex te sàmm say tànk boo amee buntu dem demal. loo xalaat boo ko defee mu may la rek de bu may dara làmb daal li ñuy bon ngay naagu. ak naan maa man ak di jubilé mbër bala ngaa yaakaar ne moo ko man da ngay toog ci koom boo daanee ba toog ci koom bu la neexee tàllal say loxo su la neexee da nga bàkku ne maa man mais ku jël sa avance daan laa tax mu jël ko loolu moom dañ ko ci conseillé nee naa ko combat bu métti nga am ndax garga fi mu tolloon bu juumee ci dernière sortie mi dernière sortie bi du bëgg a juumaat ci yow te garga it buggutoon mais benn instant mu ne maama Lamine am na coow danaa wan nit ñi ne leen am naa sama place ci làmb ji kon am na lu mu bëgg a prouver ba pare jóge ci écurie dem ci écurie kon am na lu mu bëgg a wane te écurie ba mu jógee dafa fonkoon lool euh, euh, tête de file ko boppam muy dóor door muy garga kon moo lay wane du bëgg a jóge foofu premier sorte mu ñàkk ko waaye Mama Lamine li ma la wax rek daa am lu ñu séenu ci moom waaw dañoo am lu ñu séenu ci moom yow xam nga li ma la wax gox bi am na fu ñu a Mama Lamine taxuma sax même ñi mu bokkut ak écurie sax dañ naan bu ci làmb fu ñuy dégg mbër danañ ko fa dégg te moom am na gëm boobu li ci li ma ci dolli rek mooy euh, bu bés baa yàlla ànd ak noonu waaw.